bu bépp gendarmerie ak force de sécurité boo xam ne da nga am statut mili da nga am statut militaire ñoo dal di jeexal seen travaux yi ñu tàmbali woon ne ngeen ni démb ci ñaari fan fi yëpp dal waxtaane lu lu jëm ci sàmm ak ñoŋal li nga xam ni moo di environnement waaye tamit dal di contrôler ak dakkal li nga xam ni moo di immigration clandestine. du deux jours. ci juróom-ñaari fan dañoo daal di euh, am ay waxtaan ci thème bi nga xam ne dafa delluwaat ci li nga xam ne daal moom moo ñeel bi waaye tamit ginnaaw buñ ko ubbee ci nga xam ne lu am solo yoo xam ne kat jot nañ koo daal di yaa tekk. on puisse se dégager. ñu dal di bàyyeekoo ci dëkk yu bari mu mel ni rek participants yi nga xam ne ñoo bokk ci bile réunion waxtaan nañu ci xeex bi nga xam ni moom la ñuy amal. yàgg nañoo ànd di liggéey euh, en tant que gendarmerie ak organisation à statut militaire di ay policiers ci àdduna wëngal këpp boobu ànd nag lañ ca bëgg rek mooy xeex bépp xew-xew bu mën indi ab njeexital wala sooxeel jàmmi réew mi. ci loolu colonel Moussa Fall ginnaaw bi mu daal di dégager li nga xam ne moo di ay conclusions moo ngi xamle ni kat décision yu ñuy jël ñu ngi koy amal foofa ca Madrid ci weeru octobre. au titre des nouvelles adhésions. ci li nga xam ne daal moo lu ñu duppee ay euh, bokk yu ñu bees kuréel yi nga xam ne daal gis nañu résultat visite bi ci wàllum évaluation bi nga xam ne am nañu ko waaye tamit loolu war nañ ko partagé kon décision bi nga xam ne mooy mujj war nañ ko mën a jël ci benn sommet bi nga xam ne moo am ca Madrid ca royaume d'Espagne. dans le royaume d'Espagne. réunion bi dal di jeex ñu dal di tekkal médaille symbolique bépp participant boo xam ne ñëw nga rek dal ñu dal di dajaloo woon ñun ñëpp ngir xeex li nga xam ni moo di yàqu-yàqu jaww ji waaye tamit xeex li nga xam ne moo di mbëkk mi nga xam ni day dal di menacer li nga xam ne moo di sécurité waaye stabilité waaye tamit jàmm ci àddina wërngal